Moi, mon ambition, c'est de faire du Sénégal la locomotive de l'UEMOA. La locomotive économique de la CEDEAO. Le génie sénégalais est là. Uni, on avancera très vite. Khalifa, dafay ut may ut mais ñu daje jarul sànnante xeer ndax bu lii yëpp jeexee ñun ñoo bokk Sénégal bi may ñëw fii dama ziyaare ji këru yaayu Abdoulaye Wade dem ba ci néeg bi Abdoulaye Wade di ñëw bu ñëwee fii ndax koo xam ni modèle la ci senegal def ci senegal dañ ko war di ko wormaal saa su nekk ak fu nekk les richesses minières qu'il y a dans cette région doivent profiter d'abord aux enfants de la région. Kédougou a tout pour attirer l'ensemble du Sénégal. Sénégal émergence c'est le choix du Sénégal Amadou suñu chance cinquième président avons la vérité avec nous. Nous avons l'engagement. Nous avons la détermination. Mais surtout, nous avons un programme. S'il y a des candidats qui, à un moment donné, se mettent à hésiter, c'est parce tout simplement, ils ne sont pas préparés. Ou ils ne sont pas sérieux. Ou Le Sénégal est bien tenu. Et le Sénégal continuera à être bien tenu.